bu ñu fontoo nga naan ñooy. yow kan yow xam nga man maay kan yow kan yow Mbadja. dama toog ngay wax ay wax yi nii. dëgg dëgg laa wax dëgg laa wax dëgg laa wax waxal Barthélémy Dias mooy gañ. waaw incha allah mooy gañ amul ay interview ak mooy gañ waxal Barthélémy Dias mooy gañ incha allah. sinon ñu defaral la. waaw euh, am na engagement am na détermination. li muy wax mu naan ay Barthélémy engagement. xaaral kii kii dañuy interview bàyyi ko. waaw jégalu de eh, man de sama yoon néew si. waaw yow. man maa wax ak yow. waaw léegi maa tey wax lu ma wax. boo la waxee maa tey de lu leer laa lay. tegal maa ñu ngi leen nuyu di leen siyaar dafa mel ni Barthélemy moo a gagné élection yi wala Diouf Sarr moo a waay pour ñu def prank nit ñi dama lay a gagné boo tontu rek sa waay dal sa kaw ah. waaw noonu lay demee ba si télé Sénégal donc ñu seetaan gars xool naka lay demee seen réaction entre Barth ak Diouf Sarr. ayca sama caméraman nañ dem xool leen ace yow sa gis-gis ci élection yi euh, locales yi sa point de vue diggante Barth ak Diouf Sarr violence yi ci nekk ak pour yow ka ma war a gagné ci ñoom ñaar d'accord donc ça je dirais seulement que violence yi waru ci woon am mënoon nañ kaa c'était quelque chose à éviter et que il fallait que à chaque fois ñu xam ne ñun ñu ay frères lañ on est tous de de de Dakar et que ku mënti gagné après on continue continuera à vivre entre, entre frères Dakar. Donc le 23, c'est le 23, mais après le 23, la vie continue. Donc il faut prendre ça en compte. Mais Digante Barthes et Djoussar, qui va gagner euh, pour, dire, pour dire vrai, je ne sais pas. Ah, Dakar sera la ville la plus, en tout cas la plus difficile à gagner. qui, est, favori pour toi Le favori, le favori. Bon, je crois que c'est le candidat euh, Barthes Diaz que je mettrais comme, comme ouais, favori. Barthes yow est-ce Sénégal nga dëgg sax nga naan ay Barthélemy Dias yow yaa ngi gis waa ji reetaanam bi nga naan ma ay Barthélemy Dias. Ah, d'accord donc euh, je vous. waaye xoolal waaye non di ngeen def di yàq affaire yi bàyyi di ñëw fii di waxal lu kenn xamul. Euh, ci élection locale yi euh, ville de Dakar kan nga gis comme favori diggante Barthélemy ak Diouf Sarr pour yow. man moom. Barthélemy laa gis comme favori quoi. Barthélemy nga gis mooy gagné Dakar. moom laa gis moom lañ war a fal. moom lañ war a fal je sais pas moom mooy gagné ou pas mais moom lañ war a fal quoi. waaw kii lu muy wax nii ban Barthélemy. waaw Barthélemy laa gis ne moom lañ war a fal waaye nga naan ñooy Barthélemy. waxal lan moo tax ñu war a fal Barthélemy. waaye dañu bëgg bandi bandul te duñu Papa Ndiaye. ñëw fii di ay Barthélemy ay lu ma xamul. yow kii la ñuy fal. boo mënu wax loolu nga seey bàyyi. non non du ma seey Barthélemy lañ war a fal Barthélémy fii ay waxu Barthélémy Dias lañ fi waxul. mais grand baa ji ngeen seen micro yi téye leen ko. waaw man Barthélémy lay wax man géré wu ma loolu. fii lu mu wax dëgg la géré wuñ loolu. man Barthélémy lay wax fii Dakar la fii ñun ñooy bomb. waaw ban Dakar yéen da ngeen moom fii ñun ñooy bomb ñun ñooy bomb. moom Dakar yow non moom Dakar. waaw bàyyi ma nga naan bàyyi. waaw fii da ngeen a deful ci ay wax. Eh. kii daa li muy wax nii teguwul. waaye sama am fu mën a may lu ma wax. fii ñun ñooy bomb. kii yomal xiyaam laa la fii ñun ñooy bomb. yow Barthélémy mooy gañe. Barthélémy mooy gañe. fii loolu doo ko fi waxee boo ko bëggee nga dem feneen keneen. saa yow est-ce que mën nga maa may. jàmm ma la jàmm yàlla waxuma ak yow de. man maay wax ak yow. lan la. <laughs> saa man maay wax ak yow la nga bëgg. waaw léegi après. man ma non dama bëgg nga xam man maay wax ak yow. da ngay yàpp ne dama laa ragal tegu ma ko yow tegu ma ko yow may yaa ngi ma fekk may wax ngay. ngay loolu nga naan ma ay. dama laa liggéey ba waxuma ak yow de man. nerf bi la ñu man na nekk nerf bi man damaa faale ay nerf bi. barki yomal xiyam boo def dama lay defal yow xam nga loolu sax ma lay wax. doo def dara yow. fii nii doo fi waxee ay yeneen wax man ma defaral la. bàyyi ma nga naan ma nii <laughs> bàyyi ma fii nga loolu nga yéen. bàyyi kii loolu eh, moom lu ñu neex lañ fiy wax. déggoo li ma la wax xanaa bàyyiwuma la. est eh, man boo bëlee maa neex bàyyiwuma la yow doo gérer sa kaa. <laughs> sa gis-gis ci politique bi diggante Bart ak euh, Diouf Sarr nga gis moo war a gagné Dakar. loolu oh, ça rek parce que euh, politique moom boo xoolee ça dépend du situation. parce que nit moom yaay xool ni ngay nekkee ak say dëkkandoo affaire yooyu ñu loolu mën leen a pousser bañ tey ji ñu adapté wu ak sa mécanisme mën see nu mu tuddati. Euh, mën see dugg quoi. mais yow tey koo gis comme favori Barth ak Diouf Sarr koo gis comme favori. mais nag man je suis pas Dakar waa. ah mais kan nga gis comme favori ku war a gagné Dakar. Euh, j'aime pas parler de ça quoi. mais wax wax ñu benn tur rek favori parce que combat boo am na favori. non je ne sais pas pour l'instant mais. Hmm. Euh, j'ai pas envie de parler sur ça quoi. Ah. mais. Euh, tu vois Diouf Sarr gagner je le répète encore. Ah. j'ai pas envie de parler de ça. mais euh, ça a un favori quand même y a un favori qui hmm. chaque jour ça dépendra. mais pour vous mais mais pour vous c'est quoi votre. xam nga ne Barthélémy Dias day gagné. ah mooy lan. mais mais demeewul ah, noonu. mooy demeewul noonu Barthélémy Dias mooy gagné baay boo mënu wax loolu nga seey. sa laaj dëgguma Dakar non non amul ay dëgguma Dakar ak dëgguma feneen. Eh, ok ngi dugg. Barthélémy Dias mooy gagné boo mënu wax loolu nga seey. incha allah lan la. Ah, dëgg la kay. may jaamu bàyyi dañoo taxaw fii si micro jàmbur yi di wax ay lu kenn xamul. Barthélémy Dias mooy gagné. incha allah loolu wax ko waxal Barthélémy Dias mooy gagné. waaw incha allah mooy gagné amul ay interview. ak mooy gagné waxal Barthélémy Dias mooy gagné incha allah. sinon ñu defaral la yow. waaw mooy gagné incha allah loolu wax kuy gagné. waaw. waaw ñu ngi leen di def micro jàmbur yi. ñoom <laughs> <laughs> Barthélémy Dias mooy gagné. Euh, candidat woon ci élection locale yi. waaw candidat laa woon ci élection locale. lan moo tax ñu retiré sa candidature. bon en fait xam nga doonoo nekk ci benn dëkk boo xam ne commune bi ma nekk ni commune Gawane. bon en fait dafa nekk dëkku kilifa. te ku xam Bawol Bawol rek xam kilifa sëriñ. ça ne pas dire de question mystique mais kilifa dana gëm seen kilifa daal. day doon localité yoo xamante ne cadre bi benn lay doon lu kilifa gi wax rek moom la ñëpp def. mais yow léegi commune euh, ville de Dakar. kan nga gis favori diggante Barth ak Diouf Sarr. waaw en fait je pense que ni politiquement il faut que Barthélémy Dias jàmbaar la. te bëgg na liggéey bi dëkk bi bëgg na sax Sénégal partout liggéeykat la mais je pense que ni politiquement joxo Diouf Sarr mooy avantage bi. parce que Diouf Sarr mooy avantage waaw parce que parti Diouf yow xam nga li wax. parce que non non déglul. parce que non non bàyyi yow. nekkul waa Sowaay la. xam nga parti bu pouvoir dafa bokkul. yow ni ngeen def dañ di jox xaalis. ngeen di wër di wax lu leen neex. moi je suis pas de ce genre. non dañ leen di jox xaalis ngeen di wër di ci micro yi di wax lu leen neex. nga naa may lu ma xam non non fii nii tawaay xoolal tawaay fii Barth moo fiy gagné. loolu da ngeen koy mën a wax si réew mii nii. xam nga xam li ma la mii. yéen yéen a yàq réew xam nga bu ma la posé question. yéen yéen a yàq réew. dañuy liggéey nag bu ñu yàqee lu soxla leen seen liggéey. xam nga dañuy ñëw ñu leen jox xaalis dañuy liggéey. xam nga bu ma la posé question. Euh, Diouf Sarr jàmbaar la. Guy Moussa Dieng Barthélémy Dias jàmbaar la. mën na yor Dakar mais politiquement politiquement politiquement au pouvoir parti au pouvoir yemut dara. waaye loolu nga amul fenn li nga wax de foo ko teg. fan nga teg lii position wax ñu bàyyi. je pas je suis pas de ça mooy lan. je suis pas de ça yéen a yàq réew mi jeunes lu ma xamul. je pas de ce genre non non bi ku gis xam ne da ngay marto nga ma lu ma xamul. non non da boo ñëwee taxaw fii gis Bardé naan ma ay ay lu wax. s'il vous plaît grand xaar mu àggale xam nga xam nga li problème bi parce que tey jii euh, dafa doon loo xam te ne instant bi ñoom ñi ngi seen ñi ngi seen dernière dernière position. ba pare demal ak sa micro waaye kii ñii ay défense la ñoo jëral laaj. Ah, merci grand ah, non ñu ñoo far xoolal ñu ñoo far caméra cassé la quoi. je comprends je comprends. on est avec. oui. Euh, par rapport à quoi ah, Par rapport à, à, la ville de Dakar, mmh. qui vous voyez comme favori entre Diouf Sarr et Barthélémy Diaz Euh, bon, si man, euh, je pense que euh, Bart, Bart est, beaucoup, favori. Bart va gagner Il va parce que on voit Diouf Sarr, il est partout et il vient nous dire que Dakar Boubès. Quand tel qu'il va qu'on aura Dakar Boubès, alors que lui il est là dans beaucoup de Dakar bu bees sa waay. Diouf Sarr bu ñëwee la ñu am Dakar bu bees. non non moom bu mu ñëwee du tey. non non bu ñëwee la ñuy am Dakar bu bees. ministère bu foofu maire Yoff. la moo tax ngeen soxor la moo tax yéen ngeen soxor. non même pas pas soxor non non bëggoo leen ko defar dëkk bi gars yi. non Barthé c' est vraiment c' est l' idéal. c' est le candidat idéal da nga xam idéal c' est l' homme idéal. et je pense que bu ñëwee il va innover lépp dina changer. Dakar moom kii. waaye xoolal sa waay yéen yéen yéen a changé wul ba léegi rien a changé. rien a changé dégg nga ok kii dafa war a kii amul lu muy wax fii am naa ci droit wax kenn amoo droit benn wax amoo benn candidat sa waay <laughs> candidat nga amul fii mais da nga défendre par des idées non amul défendre par des idées fii nii par force c'est pas la force fii force la nag force la <laughs> ñun réew mi ñun ñoo ko moom liñ ci bëgg la ñuy wax non yow da nga def comédie quoi waaw ban comédie parce que nous on est là pour le on est là pour le on est là pour le changement fii dañ fee nekk pour xoolal défendre suñuy candidat ganaa maay lu ma xamul pour vos intérêts. sunu ban intérêt yow mi yaay nitu intérêt nga. non même pas même pas nous nous ma waxati affaire intérêt sax loolu ma nous on est là pour le changement on est là pour le changement on n'est pas là pour des gens qui. soo waay xamoo ma soo waay teel sa micro bi xamoo ma xamoo ma rek. yow ma loolu. yow la la. man maa wax ak yow. man maa wax ak yow. waaw léegi maa tey wax lu ma wax. non non man boo la waxee maa tey de lu leer laa lay tegal. maa tey man maa ne maa tey yow yaay kan. xamoo man maay kan. yow. Euh, ci élection locale yi euh, ville de Dakar kan nga gis comme favori diggante Barthélemy ak Diouf Sarr pour yow. Euh, man moom Barthélemy laa gis comme favori. Barthélemy nga gis mooy gagné Dakar. moom laa gis moom lañ war a fal. moom lañ war a fal je sais pas moom mooy gagné ou pas mais moom lañ war a fal quoi. waaw kii lu muy wax nii ban ah, Barthélemy. waaw Barthélemy laa gis ne moom lañ war a fal waaye nga naan ñooy Barthélemy. waxal lan moo tax ñu war a far Barthélemy. waaye dañu bëgg bandi bandul te duñu Papa Ndiaye ñëw fii di ay Barthélemy ay lu ma xamul yow kii la ñuy fal. doo mënu wax loolu nga seey bàyyi. non non du ma seey. bàtt la bi lay wax Barthélemy fii ay waxu Barthélemy Dias lañ fi waxul. waaw gis ngeen ay temps na ngeen seen micro yi téye leen ko. waaw man Barthélemy lay wax man géré wu ma loolu. fii lu mu wax dañ ko géré wuñ loolu. man Barthélemy lay wax fii Dakar la fii ñun ñooy bomb. waaw ban Dakar yéen da ngeen moom ñooy bomb ñun ñooy bomb moom Dakar yow. non moom Dakar. waaw bàyyi ma nga naan. bàyyi waaw fii da ngeen a deful ci ay wax nii. kii daa li muy wax nii teguwul. waaye sama fu mu mën a may lu ma wax. fii ñun ñooy bomb. kii yomal xiyaam laa la wax fii ñun ñooy bomb. yow Barthélemy mooy gañe. Barthélemy mooy gañe. fii loolu doo ko fi waxee boo ko bëggee wax nga dem feneen keneen. saa yow est ce que mën nga maa may. jàmm ma la jàmm yàlla waxuma ak yow de. man maay wax ak yow. lan la. <laughs> saa man ma non nga xam man maay wax ak yow. da ngay yàpp ne ma ko. yow tegu ma ko yow maa ngi yaa ngi ma fekk may wax ngay. ngay yow loolu nga naan ma ay. dama laa lijjanti ma waxuma ak yow de man. nër bi la man na nekk nër bi man damaa faale ay nër. barki yomal xiyaam boo def yàlla li sax ma lay wax. boo def dara yow. fii nii doo ay yeneen wax ma nga naan ma nii bàyyi fii nga def a ma loolu nga yeen baal kii mooy gañ ñun ñoo ko moom lu ñu neex lañu fiy wax déggoo li ma la wax xanaa bàyyiwuma la doo man boo bëlee maa ne wax bàyyiwuma la yow doo gérer sa cas non ñoo far baax na c'est bon bon ce point ci élection locale yi diggante Barthélemy ak Diouf Sarr kan nga gis comme favori ma gis comme favori man de Barthélemy la. Barthélemy nga gis comme favori. waaw Barthélemy moo war a Dakar ci pour la nga wax loolu yow. parce que moom laa gis ni euh, am na engagement am na détermination. li muy wax de eh man de sama yoon néew si. non nga wax lu sa yoon ne. looy ñëw taxaw fii nii di wax ñun dañoo ne fii di liggéey si. waaw waaw yow. on est dans un pays démocratique. waaw damaa dégg loolu ñi di ay seytaane ñoo taxaw fii di laajte ay lu ngeen xamul. waaw garaaw wuy ma coupé loolu. waaye li ngay wax nii boo ko xamul dangay noppi. man ak moom ñoo far quoi dañu doon kaamel man ak moom ñoo far ñoo ànd. Bart mooy gañ. Barthélémy mooy gañ. Barthélémy wax dëgg fa yàlla mooy gañ. ñëw ci kër gi nii yow nga nii. Barthélémy mooy gañ wax dëgg fa yàlla ki def fi dara parti au pouvoir la fi nekk parti au pouvoir lu mu fi def marché yi mu jox leen France ñu indi indi FH. ñëw sa terre ah lii terre bi moomuñ ko terre fi ñuy aw yëpp ay pauvre la ku mun amul lu mu lekk nooy jëlee terre bi waaw votel kii tamit ça veut dire da ngay da nga dëggal Macky Sall def nii rek nañ votel baat baat moom mi nekk moo ànd ak yow askan wax nii bu ñu ànd booy xoolee bu ñu fontoo nga nga man maay kan yow yaay kan yow mbéjal la moo tax ngay wax ay wax yi nii wala avant dëgg la waay nga naan ay lu ma dëgg dëgg la wax yaay da nga dof yow wala da ngay xar yow dëgg la wax yaay kan ana may lu ma xam dëgg la wax la yoon yow yow yaay kan yow xam dëgg la wax yaay kan yow ma yow yaay laa la wax ma may dama lay rey ma rey ma kan yow taxawal fii nga wax dama lay coob ma lan coob ma coob ma waxal Barth mooy gañ waxal Barth gañ Barth mooy gañ Barth mooy gañ eh, boy xoolal yow dama lay fonto <laughs>